ak jigéen bis bi ku am da sant yàlla julli ci yonent bi sax say waajur xeet lépp loo musoon a def ci lu baax parce que lu baax rek mooy dëgg ñun nag li ñuy jàngat mooy Sénégal tey agsi na fu nga xam ne boo bëggee jël nguur da nekk ci opposition liggéey taxaw dëgër nekk ci opposition mais nag ñun lu ñu fen lu ñu wax lu ñu mënul di ñu wax lu ñu xamul mais yàlla may nañu kàttan won liggéey nañu Sénégal ci fukki at ak ba mu egg si ci place bu nga xam ne keneen ku dul ñun mënoo koo fi jëlee jëmale ko kanam xanaa nga delloo ko ginnaaw rek te gis li fi am te yàlla nañ ko yàlla defal ñu def ko ci jàmm ak salaam Sénégal nekk ci jàmm ak salaam ñun waa Podor waa Sénégal waa Thiès waa Kaolack ñëpp gis seen bopp ñu dellu si ci nguur gi liggéey Sénégal mu jëm kanam Sénégal mu émergent jërë ngeen